man daal vraiment vraiment vraiment Bara Dool Mbacke jaaxal na ma quoi man daal Bara Dool Mbacke man yéem na ma man damaa defe noon ab sëriñ bu saytaane nii man mais Bara Dool Mbacke sa xeetu saytaane lan la yu bokkoo Pastef ci coalition bi su ñuy taxawu ak suñ leen dee dugal sa yoon nekku ci président Ousmane Sonko suy génn kaso du yow yaa koy génnee su ko waxtaan dee génnee sa waxtaan yow du ko fa lan moo ci sa yoon pourquoi chaque jour nga bëgg ñoo gëmloo ñun patriote yi ne Ousmane Sonko sa xarit la te or que ñun xam nañ ne du dëgg c'est faux du sa xarit parce que yow nga gëmoo dara workat nga dangaa jaay sa ngor danga wàccu di ko lekkaat am na loo xam ne na gor moomu ko nekkal ci sa ligne bi nga nekk bàyyi ñeneen ñi ñu nekk ci liiñ bi nekk ñun dañoo féeteeg gor ñi yow nga dem féete jaam ñi ak naafiq yi ak sàcc si ak saytaanekat yi ak jaxasekat yi man nag siquma ak dara lu dul yow saa boo génnee ma jóg attaqué la sévèrement sévèrement parce que dama bëgg gëmloo nit ñi ne ak seytaane nekkul ci aw ak cant yow ak aw ak ab saytaane dëgg dëgg dëgg dëgg nga doon yow baaratul mbàkke lu ci sa yoon ci sunu coalition ak sunu parti